tuddee ko waajuróom wu góor alaaji lay Niass jël école bi teg ko ci loxo Mouhamed Nasir Niass école bi di dox ci système mu école am programme yu jàng matière yëpp ne danañ jàng li ñuy wax adab mooy littérature dañ koy jàng jàng lu ñuy wax lan science muy ulum jàng mat muy riyadiyat matière yëpp ñu jàng ko taarix a géographie muy euh, euh, sgo muy mawaat ya lépp dañ koy jàng pour jamono moo ko laaj bu ko defee njàng moomu moo lay permettre ëllëg nga am diplôme diplôme bi moo lay permettre nga ràngoo ay ndomboy tàkk nekk professeur jàngale nekk ingénieur nekk médecin nekk diplomatie lu ne mën nga ko nekk loolu école bi gis-gisu bàyyi bu yaatu moo ko poussé ci loolu te jamono boobu ku la waxoon ne danañ toog ba léegi ñi jaar ci école bi ñu am ay médecins yu fi génnee am ay inspecteurs yu fi génnee am ay ingénieurs yu fi génnee am ay comptables yu fi génnee loolu gis gis Baye moko moko moko moko moko créé. manam école bi ci formation am nañu ñu fa jaaroon li ngay wax ni yëpp génn nañ ci ci fànn. xam-xam ñëpp génn nañ ci. inspecteur xamna ci ñu bari. Ah. xamna ci ay professeurs yu bari bari lol xamna ci ay ingénieurs xamna ci ay médecins. Ah. ñoo xam tay ñu ngi liggéey ci Sénégal ak ñoo xam ñu ngi nekk biir Sénégal. Ah. xam naa ci ñoo xam ne ay diplomatie lañ ñu ngi ci ambassade yi donc kon loolu école bi liggéey na ko du du réew mi kese non mais ñi daan jógee ñi daan jógee Nigeria ñi jógee Niger ñi jógee gaana ay kilifa yu mag ñoo xam ne jaar nañ ci école bi léegi ay kilifa lañu donc kon da ngay gis ne école bi lim liggéey yaatu na maanaam loolu mi ngi dépendre gannaaw daar ji ak jotaay xam-xam bi ñu ooyee majlis di fa jàng xam-xamu diine xam-xamu fiq ak xam-xamul luga ak tafsir bi mu daan jàngale beesal na ko ci anam bi dëppoo ak jamono muy école bi nga xamante ne daan nañ fa jàngale fànn xam-xam yooyu yëpp nga xam ne jamono laaj na ko ci beesam uh-huh. ba ñooñu génn ci mais xanaa waxtu mi ngi dàqante ñun mais suñu bëggoon xam tey ji yan acte la daan teg pour encourager ñi nga xamante ne ñi ngi jàng xam-xam waaw xam nga euh, système bi bàyyi tëraloon ci dëkk bi wax naa ne ñëpp dañuy jaar ci alquran ba pare buñ paree nag ñu ci xam bu fekkee yow da nga gis ne école nga tànn nga dem ci système école bi pour am say diplôme boo tànnee daara ji nga jaar ci daara ji ndax éducation yi bokkuñ li la daara ji jox bokk na li la école bi jox dëgg la école bi mën na la jox loo xam ne daara ji doo la ko jox mais daara ji mën na la jox loo xam ne école bi doo la ko jox da nga gis ku commencé ci école bi continuer ci ba nga yegg fa mu jëm ku commencé ci daara ji ba mu yàgg mu taxu ñëw ci école bi mais li am solo mooy ñoom ñaar ñëpp dañuy former ki nga xamee ne jógee na ci école bi wala ki jógee ci daar yi ñoom ñëpp dañuy ànd dem bitim réew jàng ñi ci ëpp buñ demee dañuy dajee bokk benn école bokk benn classe am même diplôme bi bokk même ligne spécialisé wu ñoo koy bokk ñoom ñaar kon formation yëpp benn la ñoo bokk fuñ jëm ndax gaaya bi benn la wasila bi nag du benn mais gaaya bi benn la bu ko defee nag lam daan ñaaxee ndaw ñi pour ñu jàng moo xam góor nga moo xam jigéen nga settiwul kenn ndax bu may wax ne yaa ayatuhal banaatu zaaxim na yéen xale yu jigéen ñi rëj rëj loolu yéen ak xale yu góor yi pour sàkku xam-xam mm-hmm. yëf yi du sol yëru yu rafet du xeeñ parfum bu neex du loolu mais yëf yi ci xam-xam la nekk ndax yonent bi salaatu wasalaam moo ñuy wax ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin loolu bàyyi dégg ko appliqué ko moo tax mu ngemboon góor ñi ngemb jigéen ñi moo wax ni mu amee borom i xam-xam yu góor noonu la amee xam borom i xam-xam yu jigéen tey doomam yu góor yi ñëpp ay borom i xam-xam lañ mais doomam yu jigéen ñi ci ëpp ñëpp ay borom i xam-xam lañ Seyda Roqee mu ngi nii am xam-xam ay téere hmm. samp école hmm. Seyda Mariam mu nga dakaar hmm. yegg ci niveau bu kawe ci alquran ak ci xam-xam Seyda Uma Umul Xayri hmm. mu nga ca bitim réew di fa liggéey liggéey bu am solo ak ñeneen ak ñeneen ci biir réew mi kon yëf yi du góor ñi kese mais dafa liggéeyal xale yu góor yi liggéeyal xale yu jigéen yi kon moo tax tey boo ñëwee fii ci tànt bi conférence yi ñu fi commencé woon ba gàmm gi weeru gàmm yu teroo ba léegi dangay gis góor tey suba nga gis jigéen ba benn sëtam bu ñuy wax ndey xadi yaa xadi Fatimi jur ko def na fi conférence conférence boo xam ne ñëpp nga koy nettali kon loolu yëpp liggéey Baye Niass la hmm. ñun ñi ñëpp tey liñ am ba mën a toog fii di wax lépp liggéey Cheikh Ibrahima Niass la kon ndaw ñi nañ fàttaliku démb hmm. pour ñu fàttaliku démb nag hmm. dañuy dellu ci référence yi fi Cheikh Ibrahima bàyyi référence yi am na ci loo xam ne mbind la am na loo xam ne ay jëmm la yu taxaw di wax wala ñu toog di wax wala wax joo xam ne ci kasa la nekk ñu koy teg ci rajo yi kon ndaw ñu góor ñi ñu jigéen ñi nañ dellu ci référence yooyu mhm. bu ñu ci delloo mooy tax ñu fonk xam-xam ni ko Cheikh Ibrahima fonke woon parce que xam-xam nee na mooy njiit li war a jiite mhm. moo tax mu taalif téere tuddee ko tabsiratul anam fi anna al ilma huwa al imam mhm. téere boobu boo ci delloo rek da nga xam ne Cheikh Ibrahima ko fonkoon xam-xam la fonk gim fonkoon xam-xam moo ko poussé mu daan tukki bitim réew di dem mais di tasaare diine ji mais di tasaare xam-xam parce que tukki mi du day dem waat nit ñi ci diine ji